إني أخاذب النصارى ترى في أرضهم لمالك مصرى إني abadi Seex Xaadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi comme niñ ko ànde woon suba ba léegi rek euh, ne ci biir salle bi ci bisu xasida bi nga xam ne moom la ñuy taxawal fi Touba Italie ren nekk fukki yoon ak ñu koy taxawal ñoo ngi toog yàlla ak suñu ay kilifa di suñu ay sëriñ di suñu ay lépp sëñ Abdou Lahad Mbacke moom mootu Modou Fadi yi moom sëñ Sama Mbacke wax dëgg yàlla kon kooku moom bu ñu ko tudd xasida yi rek day mel ne kon tudd nañ borom comme suñu laat gannaaw bu la ziaré bax mbacké bàlla di leen masso cioné yu bax ba way cioné metti rek la cioné bànneex wax deug yalla ndax it euh, bu ñu wax xasida ba gis satou sëriñ massa mom wax deug yalla kon day melne kon gis nañ borom kon mu melne kon adi yépp wax de yalla def ni ñu ngi koy bokku diko téwé ren nek fukké fukkeeloon ak ñett ñu koy taxawee fii Touba Italie ci Milano kon euh, suñu blaat xayna kon yow yeen gis-gis nga am rek ci bisi xasida yi nga xamné ñu ngi koy taxaw ci Europe waaye rawatina fii Italie ta yalla def ren muy fukkeeloon ak ñett ñu koy taxawal Pidj Italie sëñ Abdou Lahad yan yëg-yëg nga ci am ci taxawaay taxawaay yi nga xam ne ñoo ngi koy taxawal bisu xasida bi fii ci Touba Italie te nekk treizième édition bi ci Milano. jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi lay sant bu baax di la gërëm di am mbégte nag ci laaj bi nga xam ne moom ngeen ñëw tey ngir di ko laaj ñu ngi sant sëñ Touba bu baax ñu am benn complexe wax alhamdulilahi rabbil alamin sëñ Touba jërëjëf sëñ tubaa jërëjëf sëñ tubaa jërëjëf mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant sa di leen gërëm dem mbégte na ci lii mu doon loo xam ne naka jekk moo yoon wi ñoo ànd te bokk na ci yi nga xam ne sëriñ Tuubaa daana ko bégee ndax man nañoo wax benn transe boo xam ne dañuy wane ne Cheikh Ahmadul Xadim bégee woon na jàng benn bis boo xam ne daw euh, ay ay ay ay taalibe ñoo jógee ci kër ma Massamba ñëw biir kër sëñ Touba di jàng ay xasaayit sëñ Touba dégg jàng yi toog ba mu yàgg mu yanu ab kël boo xam ne xéewal la ci def wax nañu ne baraaya la bu soow tam saf suukar ba mu ñëwee ba tolloo saket wa def ne ana ko toll fii sëñ Masamba ne ko nu na de Mbàkke mu ne ko nangul mu daal di koy jël xëll boobee ne ko joxal jàngkat yi toog na lu mel ne diggante boo xam ne war naa mën a dellu ci néeg ba ab diggante bu gàtt mu ñëwaat indiwaat geneen xéewal goo xam ne nii ay xéewali mbagaan la goo xam ne dafa def euh, wax nañu ne muuraake mu neex a neex saf suukar mu ne tollu toll fii sëñ Masamba ne ko man de maa toll mu ne ko nangul mu jël ko baraaya ba mu raake man naa def ko rek jàngkat yee ko moom si tuuti mu dellu siwaat ñëw <coughs> wax sax Masamba ne ko fëgg bunt bi ne ko Masamba tekkil tekkil sëñ Tuubaa buy wax tijjil du wax tijjil day wax tekkil mu tekki mu daal ne ko ma sàmma mu ne ko mbàkk mu ne ko sama sama yére yooyu nañ ma ko yët yére yi nag boo ko déggee tabla la yaatu yu bu rafet yu ànd ak moqoraas mu ne nañ ma ko indil ñu indil ko ko mu ne euh, mag ñëpp gi fi wax nañu ne maam Seex Ibra Faal fekke na ko ba wax ne ay waay jotaay bi ñi di jang xasaay di mu bëgg tok di tagalal bopam ataay ji day mak waron diko di wax ci xelam señ Tuba lu way wax dégg na mo xamal ma si Ibra Fall nako ko Ibra mën na ko faal Mbàkke mën la ngay wax de ko day sama loxo di jox ñi di jang sama di bu yow moom xëyaama yàlla fay ma fay leen mu mu daal waaru sëñ Tuubaa daal di ne xanaa xamu ne xasaayit yii lépp lu ma am ci laa ko jële moom nag dafa doon koo xam ne turi yàlla yi yëpp da leen na tërbiyewu <coughs> ba jot seen ijaaba mu jël ko nag defaloon na ko ci biir xasaayit yi sa xasaayit sëñ Tuubaa yi di ñeenti bayit ñeenti bayit yi doomu aadama bu ne foo toll yàgg ko yitte woo muy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàkk yàlla wéetal ko ak ñaan ak sant mooy ñeenti bayit xasaayit yëpp booy seet loolu la làmboo ñaan yàlla ci turu yàlla yi nag moom da ko jël tarbiyoo ko ba am ijaaba defal na ko ci xasaayid yi te kenn ku ci nañ nit nit gannaaw sa wasila wasila woo am sëñ Tuubaa la yaakaar boo boo jàqee dangay wuti sa wasila wala nga wéet ak xasaayid yi sëñ Tuubaa fajal la kon nag jàng xasaayid lu ñu moo ñaale la ci ak murit mooñale ko ci taalibe moo tax nag ñuy sant di gërëm taalibi Serigne Touba yi nga xam ne maanaam ànd ñoom tey moom dama ànd ñoom ñëw waaye bi ma ñëwee yëg naa ne sëñ bi ci bopp moom feeñ ñoom ci xasida yi ni ñu bëgg Sëñ Touba ne lañ bëgg xasaayit nit nag boo ko bëggee gëm ko da ngay bëgg jëfam te xasaayit mooy jëfi Sëñ Touba kon nag nañ koy jàng di ci saafarawu àddina ak àlaaxira ndax xam nga ne sikar moom day ànd ak tuyaaba waaye xam nga ne sikkar ba yàlla wuyu la nga nga dawal ñaan yàlla day nangu di julli ji yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ne moom wax na ne juróom-benn weer yi di julli bi la koy boo di liggéeyam juróom-benn weer yi mooy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa loolu nag mu doon njëriñ loo xam ne ku bëggal taalibe yi njëriñul àddina ak àllaaxira xéer ci jàng xasaayid yi xasaayid nag sëñ Tuubaa wax na ci Seex Masamba benn xesa nettali naa ko États-Unis ñu di ko yéem waaye sëñ Tuubaa moo mel noonu ndax sëñ Tuubaa wax na ne xasaayid yi ñetti xeeti xasaayid la nee na am goo xam ne dafa tudd a ak xasida goo xam ne dafa tudd baadiya ak xasida koo xam ne dafa dugg xabliya waaw mu wax nag ne xasaay dii day eh, dafa ñëwee benn boo ci gis dafa ñëwee ca xaala bam ñëwee boo ñëw rek lu ma ci ne am na lu mu fekk sëñ Tuubaa ko def mu ne nag mën nañu faj da leen bëgg um, ñu xàmmee ko te digale taalibe yi noonu xasida yi dafa xabliya mooy xasida goo xam ne nee na booba maa ngi jëm ci yàlla di liggéey tàggaguma waaye lu ci waay wut ci xamle ya mën naa jafe mën naa mel ne lu lay sëlbu waaye soo mu ñu taajo dana fayu <coughs> daal di koy xamal nag ne ko xabli ya nañ koy xàmmee na ngeen ko leeral taalibe yi ndax gépp xasaayit goo xam ne da nga koo ubbi moo commencé aouzu billahi min asheytaani rajim wa inni u'iizuhaa bika wa dhurriyyatahaa min asheytaani rajim rabbi aouzu bika min masaati shayaatiin wa aouzu bika rabbi an yahduruun googu ne sëñ Tuubaa nee na foo ko ubbee rek xamal na xam li yàlla ndax bi may liggéey ba ma dem a gudd ci géej gi seytaane dafa dogale di ba rek mën doole lool bëgg maa yàqal waaye sun borom dogal ma nag dimbalee ma ma maa ko daan ndax nee na nag am na doole waaye dee leen ko muslu ndax eh, bi may bëreeg moom la ma yàlla xamal dooleem waaye dimbale ma ba maa ko daan waaye koo mun dimbal lu toll ne ci man lu man lu toll li ma am ba bëri yow dana la daan waaw te ku bëri ku daan nga am ci sa bopp lu la naqari ku daan am ci yow li mu bëgg ku am ci yow li mu bëgg nga am ci sa bopp la naqari kon dee leen ko muslu mu ne xasida googu nag xasida la goo xam ne boobu loo ko wute da yàlla dana la teg ay nattu yàlla dana la teg ay tuuma yàlla dana la teg euh, ab coona waaye soo mu rek sa aajo dana faju te bu fajoo du du du am aajo bu fajuwul muy muy xabliya mu teg ca na xasida goo xam ne mooy baxariya ne ko masam mu ne ko mag mu ne ko baxariya xam nga nooy waxe taalibe bi nuñ koy xamee mu ne ko déet Mbàkke mu ne ko xamal leen ne gépp xasaayit goo xam ne ubbi nañ ko mu tàmbalee bisimilah rahmaani rahim mi tegu salallahu julli ci yonent bi rek xamal ne ba ma nekk géej gi laa ko na nag loo xam na nag xasaayit goo xam ne boo noppee yàlla daan la nattoo nga ñàkk ak tuubu waaye soo ko muñee rek saajo day daal di faju mu ne ko nag euh, ma Mbàkke xamle moom yi mbaxare moom yi moom kat moom mat naa xàmme mu ne ko digal leen nag xasida goo am wa sallallahu ala sayyidina muhammadin door a teg way yi rek ku man doon géej gi géej la kon koy fa jaajo na nga na nga jiital ak muñ tali ko ci tegal nag xasida gi xam ne moom la préféré pour doomu aadama di ko jaam nee na booba am na ngërëmul yàlla am na ngërëmul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xam ne bëgg nañ ci moom ba lum ñaan yàlla def googu nag bu bëggee sa aajo gaaw a faju nga gën a xéer ci tur yàlla yàlla da gën laa dolli ba lo yem nag koy man dolli nit ñi dinañ ne mënu ko waaye da ngay am nag ci la dugg ndu ko xasay de xanaa moom moom la fee moom la dongee di farfeete woo mu ne ko yépp baax yépp lañ war di féetewoo ndax kenn ku ci né ku muñ rek da nga falu waye gi nga xamné moy mooy baxam ya dal nga gëna bu mu ci géej gi gëna bu amé amee yalla la mo gëna a gaaw ci aajo mu ne ko mbàkke nuñ koy xamé mu ko booy xasida gépp xasida ubbi gën ko fekk mu bismillahir rahmanir rahim rek amul amul amul amul amul amul ben ben ben, sallallahu wa sallam amul a'udzu billahi amul tërjumaan bu ngeen ko ubbee rek bisimilah rahmaani rahiim dal ci way yi kooku xasee di moom gën a gaaw ci aaju yi kon nag mooy looy wut lu ne président de la république bari na lu bi lañ bañ ko falagut bari na lu ko yomb gannaaw buñ ko falee loo xam ne mas na jaasoon tabu woon kon gannaaw gii itam mu gën gaaw ji suñu yitte te suñu yitte yaakaaruñ ko du sëñ tubaa te sëñ tubaa moo ñaan ñaanal nu def ci turi yàlla yi tarbiyewu leen ba jot seen ijaaba dugal ko ci kon ku yéene nit àddina ak àllaaxira dafa aw ko jàngaloo ko xasaayit te buy jàngi da koy bégee kuy jàng xasaayit man moom ma gënal ku ma bokkal moom ma gënal ñëpp faw dama lay bëgg maanaam ci tey jii bi gone yëkkati nañ ci biir kaar bi yoo xam ne bi may jooy teyu ma ko waaw xasida mooy lépp yal na ci yàlla jariñ naka jekk bi fi sëñ Tuubaa nekkee fu mu toll di santaan nañu jàng te moritel fu mas nekk ci àddina baatam du dellu ginnaaw te murit di daawul dellu ginnaaw te murit lu mu man ko loolu lépp sañ Tuubaa ko ñaanal kon nan foog ko xasayid yi fa xasayid yi sëñ Tuubaa ko taalif jagleel nu ko nun dong ko yaakaar mu ñaan ci biir sant ci biir bàkk yàlla ci biir nu ci aaru di ci jéñ di ci jotti yàlla nan yàlla dëppale xeer ci xasaay di te lépp lu ñu def yàlla ñu ko dëppale ak ndi ngërëmul sëñ Tuubaa jërë ngeen jëf ñu ngi leen sant di leen gërëm wa jërëjëf euh, serigne abdoulaye Lahad mom serigne Modou fatih Xëri mom Cheikh Moussa Mbacke kaddu yi amna solo da rafet ñu ñaan yalla yagal hol te wéral la guddal saw fan wax deug yalla nga yag ñoo jité ñu yag nek sa gannaaw ci barke serigne Touba barke xasida yi ci barke sa maam Cheikh Moussa Mbacke inew khadimun nasaratura fi arnim li maliki mursara آه، بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هم بوكي جولي جيم بوكي تالبين يخلنا نيوي باي خل توا موند بي تيوي لكلو أغراجة خوش دي بي نيوي في تي بير ما پنسفيرا تي بيسو خوش دي بي نخلنا موم لجي ren nekk nag treizième édition bi maanaam fukkeelu yoon ak ñett ñu koy taxawee ci ndigalul Serigne Sidi Muxtaar Mbàkke bi fi nekk Serigne Touba ñu ko ñaam yàgg fi loolu tubéer ci barke Seeru Xadim waaj teewaay tamit euh, doomam ji nga xam at mu jëmoon la fi yow muy Serigne Cheikh Bara Mbacke mati lay mu mel sax ak yeneen kilifa yu bëri yoo xam ne ñu ngi fi ndax ñu ngi gis gannaaw ku mel ne Serigne Bassirou Mbacke moom Cheikh Mourtala dëgg yàlla moom it di kenn ci njabootu Serigne bi di borom xam-xam xam moom it teew ci bis bi wax dëgg yàlla sëñ seexu naa gannaaw bu la nuyoo baax ziar la di la di la tatagal di la wax rek marhaba bikum tey di la ndokkeel bu baax a baax ak di la bu baax a baax coono yi nga xam ne wax dëgg yàlla suba ba léegi yéen a ngi ci muy coono yi mbégte waaye itam di coono yi bànneex xam naa gannaaw bu la nuyoo ziar la xam naa nuyoo nuyoo bi ak laaj bi xam naa la ñuy boole rek ngir njëkkante waxtu xawee xat muy gannaaw bu la laaj bi mooy naka nga gisee bis xës yi nga xam ne ñoo ngi koy taxawal fii ci fii ci Touba Europe wax dëgg yàlla ay mbokk di ko taxawee yan gis-gis nga ci am ak maanaam yan njariñ la leen mën a jural ak it yan soññee tamit nga leen mën a andil ba ñi nga xam ne ñoo ko tax at mu nekk ñu gën cee am beneen pas-pas ak beneen maanaam yëg-yëg ba saa su nekk muy gën di murite sëñ Cheikh naa. auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. وجه الكلام راشدا ومرشدا وفكرته نوير وقلبي ارشدا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته شيخ بن زيار باخ باخ باخ دي ام بكت بو باخ باخيت دي تي تيرل غنج تي تيرل نخيت لو باخ موم كيب كولا تي وو رك دا غاي خامن يينا لا لو باخ كون نك يالنا يال ديف ليپ موي لو باخ لاج بوب رك نانتي سوار لول ما شاء الله موي كادو يي ام سولو تي ييك ييك خاجنا داي دون كادو ييك ييك خاجنا ndax euh, lu melni nii buñ euh, ko fekke day melne dañuy yëg ne sëñ ngi suñ biir motax lu am solo la ndax señ bi kat bamuy bind yu melni la soxla euh nit ñi di dajé di di jang alquran di jang xasaay di ndax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ne fu ay nit dajé jang alquran di jang diko di duñ fa joggi mukk li fe ta yalla waccu fa yermande kon yu melni rek mo taxone te ñu xel bu baaxa baax ndax minum señ Tuubaa dafa am bu kawe ci diine mbindum Sëriñ Tuubaa dafa am place kawe kawe place la boo xam ne ba ca gaañu baax ñëpp xam nañ ne am na place boo xam ne kenn di ko weddi ndax moom rek la mbindum Sëriñ Tuubaa rek la ko yàlla jagleel mu nekk karaama ci moom ndax Sëriñ Tuubaa yaa ngi koy dégg mu koy wax ci naan karaamati xatu yad yi fii xidmatil mu ay yad yi wa kaana li bil afiyadi allahu mulil karami kon day mel ne bu ñuy seet karaama yi Sëriñ Tuubaa dëgg-dëgg duñ ko seeti feneen waaye dañ naan nañ sukkandiku ci lim bind yaa ngi dégg mu wax nag karaamati xatu yadi wali jazab aadamahu rabbi bi xatti fan jazab kon samay karaama dëgg-dëgg mooy mbind mi ma bind te ñu bàyyi bàyyi walla xel baax comme karaama mooy mbind mu bind lan la Sëriñ Tuubaa bind Sëriñ Tuubaa am mbindam sant yàlla la tudd yàlla ak maggal yàlla loolu dong la ni ki noonu ba tey ak di sant sangam ba di sayyiduna Muhammad sallallahu kon moo tax ba muy wax naan kitaabati ذكر ذكر وشكر ومداد كتابه ذكر وشكر ومداد والله وخون الله الله أرسد الله أرسد قلامي والمداد الله أرسد خلامي والمداد ياخمكو دايما السم بن لا وخنا تود يالا لا اك سانت يالا اك محمد موتا مو لم لم تكتب الاقلام بالمداد في غير فيد الله زل الامداد سما داك سما خليب دوما تي بين دار دود lo xam day dolliku kon mo na def loolu comme mo na def lol nak motax minum Serigne Touba boko rek li nga xamne ne la nit ki gëna mëna sukkandiku mom la murit bi gëna ci wala ci la wara sukkandiku ba tax mu mëna avancer kon nak ci lu mel nii ci lu mel euh ci rek lañ ko bëra jëfëndiko jëfandikoo dajale nit ñi ñukoy jang diko jangat di jang xasaay di jang alquran euh, ndax ci waxam joji ci la demee won ba jéggi Hassan bun sabit ak Kaab ibnu Suhayr ibnu Sabi ibnu Abi Salma ndax bo dee ci day wax ne wa fi madhihi jaawastu kaaban wa xassaana di nga ko gis fii mooy li wax ne mallak mallakta nii waxuttali ixsaana waristu fi madhi nabi hassana gis nga yàlla may na ma loo xam ne ci ak rafetal la ma ko mayee te ci dond naa ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ki la waxaan aslamtu wajhi ilayka yawma saaxidamin liman xadawtu lahu kaaban wa xassaana sant naa ko ci bi ma joxee ma mel ne ñaar ak da ngay def na wa fi madhi jaaw sukaaman wa hasana kon day mel ne mbindum sëñ Tuubaa lépp ni ko waxe won dikr la ak shukur comme sante yalla la ak tudd yàlla it ta wessu lu melni dajé nit ñi sante yalla bu baax dundal xol yi dundal ruuy bu rap dundal yaram yi kon ñoo ngi sante bu baax baax di am bekté bu baax baax di ko bokk ak yeen di ñaan yalla it ñu teew koy at yu bare bare bare te bi at mu ne gën gëna dakk at ma ci top te ñaan yalla yalla nangul ñu def ñu deug deug talibé Serigne Touba di sante yalla bu baax baax di leen gërëm yeen ñepp yeen it ndax lu la ci ko la ci boole rek mooy war nga koo sant di ñaan yàlla it yàlla ñu fekk ay at yu dem bari bari incha allah jërë ngeen jëf ñoo ngi jégalu bu baax a baax nag macha allah ñu ngi jégalu bu baax. jërëjëf sëñ Cheikhouna xam naa kàddu gu mujj rek mooy xëy na yan kàddu soññee kon ngay mën a tel mbokk yi nga xam ne ñu ngi koy taxawee saa su nekk ngir xëy na ñu gën a amaat pas-pas ak yëg-yëg ci liggéey bi gën cee sóobuwaat baax a baax ngir waajal tamit incha allah ci liggéey bi. waaw xanaa mooy kàddu kàddu sant rek ak di soññee ndax soññee gi mooy la sëñ Abdoulaye waxoon na ngeen am fulla na ngeen am fayda na ngeen farlu am fulla mooy lépp lu nekk lépp loo nekk fu ca lu baax yam na nga ca yam am fayda mooy lépp looy ne looy def nanga nga la nga nekk ci fukki nit ak nekk nga nekk ci yow dong mooy kon lépp lu ngeen def ci lu baax bu lu nit ñi néew néew néew ca la barke ba gën a bari na ngeen farlu mooy na ngeen yor jikkoy ëkk te bu leen yor jikkoy xob ëkk kat fu ko ngelaw fekk fa la koy baax waaye xob fu ko ngelaw fekk da koy yóbbaale kon daal loolu moo ci am solo nañ bu ñu xamee ne lu baax la nañ ci way dégg nga ba nekk ci bu ñu xamee ne lu baax la moo xam nit ñi bari nañ moo xam néew nañ nañ ca nekk te fu ñu nekk it bu ñu def lu jóg yóbbu ñu loolu moo ci am ndax am murit bu lépp lu muy def rek mu jikko na xam ne loolee mooy dëgg lépp lu mu def nga xam ne musiba xam ne ay problème nga ci juddoo na xam ne loolu jikko ko kon moo tax yu mel nii daray ngistal nekku ci daray tappale nekku ci lépp Serigne Touba la lépp dëgg la lépp sant yàlla ak tudd yàlla moo tax di soññ ñëpp di soññ suñu bopp ñu man yàlla def na mosuma cee teew moo tax ren ji ma jaayante bu baax a man man cee teew incha moo tax sant di ko sant yàlla bu baax a baax nga xam ne euh, boo fi yëgee dëgg-dëgg daal da nga yëg ne euh, def nga lu baax waaw moo daal loo moo am solo moo daal gën cee góorgóorlu baax a baax nag incha allah ini uxaadimu nasaratura fi arnim li maliki mursara ini uxaadimu مسارات في أرهم لمالك مسرات bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokk yi comme nin ko ànde woon suba ba léegi rek ñoo ngi ci biir saal ba léegi nii ne ci kanamu kilifa yi wax dëgg yàlla sëñ Massour mbakke moo nekk suñu wet nii ak sëñ Axma Mbacke moom it nekk suñu wet moom sëñ Abdou Akram sëñ Axma gannaaw bu ñu nuyoo baax rek ziar la di la masawu coono yi coono mbégte coono bànneex wax dëgg yàlla di am mbégte lool di jàkkaarloo ak yéen. xam naa dañuy njëkkante waxtu bi rek ak di leen masawu baaxi na coono yi nga xam ne xëy na tamit léeg-léeg ñu xaw leen koo teg di nga tuwal baax a baax a baax ngir jëmi sëriñ bi. xam naa li ñu bëggoon laaj rek mooy comme yàlla def na euh, ren mooy fukk ak ñett ñuy taxawal bis bi ñu defee ko ren fii ci Malpensa Fiera ci Milan wax dëgg yàlla def nañ ñu fekk woon ko daaw fekk waa ñu ñaan baax a baax ci barkeb sëriñ bi ñu fekk waa ko déwén incha allah taala ak ñëpp rek ci barke Seex Xaadim barke xasida yi euh, xam naa laaj bi mooy rek euh, lu mel nii fii ci Europe ñu taxawal ko fi ba yàlla def ren muy fukki yoon ak ñett ñu koy amal yan yëg-yëg yan yëg-yëg rek nga ci mën a am ci ci ci jotaay yu mel nii xam dañu fi fanaanee jàng xësiñ ci waa ak alxuraanu karim ak def ci salaatu ala nabi ba bët set. su ko defee buñ ca jógee tamit fas yéene waaj laa déwén lu mel noonu yéen yëgi nga ci am ak tamit yéen soññee nga ci mën a indi mbokk taal bi nga xam ne ñu ngi koy taxawee saa su ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi ñu ngi sant xaadimal Moustapha bu wér a wér xam naa wax ji nag xam naa wax ju gàtt lay doon ndax bett gum ñu bett waaye nag buñ la laajee laaj bi moom ñu tontu ci dañ ci sawar lol, te it wax deug yalla liñ ci nanggu jàngé bokku na ci nangu ko suñ borom nangul ndax ku na xam ni bërepp bu melni mom euh kenn minu fi lu melni kon bu fekkante ne ñew nañ di fi yëkëti xasida yi suñ Tuubaa ni ñu ko gisé nga xam ni la taro manam euh, dañuy wané ni rek suñ manam amul morom ci bëpp anam nak, ndax daj na ci yàlla loo xam ne nii dama koy faral di wax suñ tubaa moom buñ ne amul moroom ni nga koy déggee rek mooy euh, dafa daj ci yàlla loo xam ne ñiti yàlla yi bari nañ waaye nag moom ni ko wuutee maanaam euh, wuute nag niñ koy wuute yeneen nit yàlla yi niñ koy wuute ndax moom dama koy faral di wax wax ji nag xam naa wax ju kii lay doon waaye nag yég euh, yëg la rek mooy suñ tuubaa ci boppam dafa amul complexe suñ borom ndax lii bokk na ci li nga xam ne ñaan na ko yàlla lii nii nii jataay bi mel nii kon niñ ci mën a jànge rek bokk na ci maanaam gën a doll gën a dëggal suñ pas-pas ci moom gën koo bàyyee suñ bopp te it gën a jàpp ci moom bu baax a baax te bañ ko yemaleek dara ndax foo xam ne ni dañ faa toog di jàng xasaayit wax dëgg yàlla niñ ko war a jàppe mooy bërëb boo xam ne mënees na fee defaroo kon nag li ma ci soññ sama bopp di ci soññ sama bokk taalibe mooy buñu ñew ñu and ak xol bu set wicc fexé ba làpp labal suñu xol bu baaxa baax ba nga xamne buñu bu dal manam da nañ fi mëna jarriñu bu baaxa baax ci aduna ak ci alakhira kon bokku na ci diko setantal diko selal bu baaxa baax ndax ni jotaay bi melni nga xamne ku fi ñew da nga am leneen lo xamne ni mom ko yek yek yek bo xamne wax deug yalla eh, ñepp koy rafetlu ndax lo xamne international ñepp diko teewe wax dëgg yàlla ndax jataay bi ñi fi toog ñëpp mën naan yoonu murid yëpp teew nañ fi kon daal ñu ngi koy ànd ak yéen di rafetlu itam nii ngeen koy defee di ñaan suñu borom nangul leen ci li nga xam moo tax ngeen di ko def te suñu borom dañu leen ca ngërëmu bu baax a baax te nag bayoo ñu rafet njoot ndax ne leen wér ñu suñ mi ngi suñ biir ndax xasiidaam yi moom maanaam lii moom rek moo ko am bindkat yi bari nañ waaye mooy ki nga xam ne lim bind maanaam nii ñu koy yëkkatee ak nii ñu koy defee moom rek moo ko am kon ñu ngi leen ci gën a soññ baax a baax di ci soññ suñ bopp di baye nag eh, ñu rafet ci njort bu baax a baax ñoo ngi ñaan suñ borom nangul ñu ko te yàgg koo teew bu baax a baax rek xam naa wax ji sax wax dëgg yàlla yéene ji wax dëgg yàlla kii na waaye nag dañoo miinut wax ci mbooloo waaye nag eh, ñi ngi sant baax a baax daal liñ li nga xam moom lañ bëgg a wax daal wax dëgg yàlla lot nañ ci wax ko waaye nag ñi ngi lu bu baax a baax ni ngeen koy doxalee daal wax dëgg yàlla di ci ànd yéen baax baax nag jërë ngeen jëf إني أخاذب النصارى في أرضهم لمالك مرترى إني أخاذب النصارى bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu mbokki julli mbokki taalibe yi comme ni nga xam noonu lañ ko annoncé ba léegi rek ci fii ci bisu xasida bi ñuy amal fii Touba Italie ci Milan ci Malpensa Fiera ñun toog nag ak Serigne Djili Mbacke moom Serigne Sidi Mokhtar Mbacke mi fi nekk Seexul Xadim ñu ko ñaam yàgg bi loolu te wér ci barke Serigne Touba barke xasida yi Serigne Djili ñu ngi lay ziar baax Mbacke Balla di la masawu coono yi mbégte yi ak coono yi bànneex yi. di am wax dëgg yàlla mbégte bu baax a baax a baax wax dëgg ànd ak yéen guddi gi nga xam ne guddi Serigne Touba la muy guddi xasida yi xam naa Serigne jiit rek ñu bëggoon la laaj ay laaj xaw gàtt rek xam ne ne temps gàtt na tey coono yi mel ne xaw naa xaw naa xaw naa bari waaye lépp coono yi tawfeex rek la laaj bi mooy Serigne bi maanaam bisu xasida bi mel na ne teew nga ci te su ma juumul xëy na teewoon ngeen ci at yii ñu weesu kon sëñ jiit yan gis-gis ngeen am bisu xasida yi xam ne ñu ngi koy taxawal ci Europe waaye rawatina fii Touba Italie te yàlla dogal ren di fukkeel yoon ak ñett ñu koy amal ci ndigalul sëriñ Sidi Moutar Mbacke mi nekk sëriñ Touba wax dëgg at mu jëm mu fi yabal ko ak njabootam ci aw turam ak ci kàddoom ak ci ay ndigalam wax a muy loo xam ne euh, day gën a soññaat mbokki dongo yi wax dëgg gën a nammaat seen i pas-pas ñu gën a amaat ak euh, pasteef bu baax a baax ci liggéey bi. wax dëgg ñu bëggoon a am rek ay kàddu yoon boo ñu ko mënee àddu rek mu jëm ci wàllu xasida yi ak yitte jin ko wara jox ak yan yeg yeg nga am ci bis yi nga xam ne ngi ko war Sëriñ Tuubaa ci Europe bi rawatina fi itali ci bisu xeste bo xam ren moy fukki ak ñet ñu koy taxawal ci ndigalu sëriñ bi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginnaaw buñ sante yalla jullu ci nante bu tedd bi ñi ngi gërëm sunu yaakar si Amadou Bamba khadim Rasul di jital ci nuyo bi Cheikh Sidil mukhtar xalifa général de Mouride di nuyu sëñ seex Bara moom mi nga xam ne moom la seriñ bi yónni ngir mu taxaw liggéey bi bi nu ñëwee tamit fekk nañ fi lu kawe suñu jot lool ndax taalibe yi moom ñi ngi dund sëñ Tuubaa bu baax rawatina ci wet gi nga xam ne jekkoo nañ ko ko muy ci xasida yi eh, te xasida di lu foor ci sëñ Tuubaa di liggéey bu rëy rëy bu sëñ Tuubaa liggéeyal yàlla liggéeyal ci yonent bi liggéeyal ci mbooleem njabootu lislaam gi yëpp bu yàlla dogalee nag ngeen jàpp at mi bis boo xam ne da ngeen cey dajaloo ngir fesal ak feeñal seen liggéey bi nga xam ne moom ngeen liggéeyal ci moom ngeen doon liggéey ci at mi yëpp ngir gën a wane liggéey bi Sëriñ Tuubaa tamit baax na bu ñu yeggee foofa ñu xamal leen tuuti ci xasida yi njëriñ li mu am ngir positif bi gën a yokk ñi nga xam ne tamit ñi ngi ci woon ñu gën cee xirtalu bu baax a baax ndax xasida day lu day day lu foor day xam ne dara génnu ci Euh, alquran dara génn ci addis yonent bi sallallahu alayhi sallam dara génn ci tamit lépp loo xam ne lu baax la lu jëm ci tagg ak sant yàlla sunu borom tabaraka wa taala euh, kon nag bu yàlla dogalee ngeen def bis bu mel nii woo ci jullit ñëpp ñu daje fi di bis bu kawe njort ndax tey ku fi ñëw danga fi fekk mbooloo moo xam ne jégg na dayoo lool kon ñun ni ñu ko fekkee sax sun kawe na sun njort kon nag ñu ngi leen di ñaan ngeen daje ci ngërëm suñ Tuubaa khasida nak eh, seigne touba dafa waxoon ni dama ko dama ko eh, dexeñ ci mbotum la ilaha illallah ci teunk ila tawalifi yaqudu la laaha la ilaha illallah mbotum la ilaha illallah nak buñ ko don peese ci ab dayo mi ngi melne nga jël juróom-ñaari asaman jël juróom-ñaari souf teg len ci balance bo len tege bo tege mbotum la ilaha illallah ci balance mu wat ko nonu la mbotum la ilaha illallah tollu serigne touba dexeñ ko ci khasida yi nga xam ne aji jàng ji sax te yittewoo ko nga xam ne sart yi sëriñ bi bëgg muy set sell def sa yitte yëpp di xasida yi boo ko boo ko ci defee daanaka mën nga ci am saa nafin bi laa dara dina am ci ngërëmul àddina am ci ngërëmul alaaxira ndax euh, loolu rek taxam sëriñ bi sëriñ bi bind ko kon nag coono yooyu ngeen ci daj yëpp ngir bëgg a ak bëgg a loo nit ñi xasida Sëriñ Tuubaa yi xam ne njariñ kesal lu ànd benn loor tamit loolu taxawaay bu kawe kawe la ndax xasida sëñ Tuubaa yi moom da koo mooñaale alxuraan mooñaale ko addis mooñaale ko mboolem lu baax lépp fab ko dëxañ ko ci kon ku koy jàng yàlla dama naa defal taw tawféexi àddina defal la taw tawféexi alaaxira kon bu fekkee amaat ngeen beneen laaj bu ngeen laaj rek ñu kii waaw jërëjëf sëriñ euh, Jibi kàddu yi am na solo wax dëgg yàlla xam naa ne mel na ne toogaay bi yàgg na dootu yàlla mel na ne tamit ay yitte yu bari mi ngi leen kon sa kàddu yu mujj rek xëy na yoo xam ne dañu mbokk taal bi rek sëñ Jibi Wow, jana gën leena a war rek ngeen gën a gor te xam ne yéen yene ngi ci yoon wi li rek nako sëñ bi bëggee moy japp benn bis bo xamna njabot gi yëpp dañ fi daje ngir fatlikou wane seen liggéey ak seen xemmemteef ci liggéey bi waaw loolu rek moy li nga xamné moy moy moy solo bis bi kon nak yalla leen ci yalla jappalé li ngeen ci bëgg te diko mebet lepp tamit yalla nako ci yalla sun borom tabaraka wa taala defal ak sëriñ Tuba amin ay Mbacke ball kon mbokk yi ñi ngi sant bu baax kon ñu togon ak sëriñ Jili Mbacke mom sëriñ si mutar. kon ñu koy sant baa di gërëm jërë jëf ini xaadimul nasaratura fi arnim li maliki bisimilah barke woon tuwa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi euh, comme niñ ko ànde woon ci suba ba léegi rek euh, ci reportage yi nga xam ne ñoo ngi koy ci biir salle bi fii ci Touba Milano ci bisu xasida bi nga xam ne moom lañ baaxoo amal ren nag nekk fukki yoon ak ñett ñu koy taxawee ci ndigalul Serigne Cheikh Moutar Mbacke mi nekk Cheikh Khadim ñu ko ñaam yàggul tëwër ci teewaayu doomam Serigne Cheikh Bara Mbacke matalay ak kilifa yëpp yi nga xam ne ñoom la àndal mu mel ne kon ñoo ngi toog ak Serigne Moustapha Mbacke bu Touba Milan nga mooy imaamu daara yi Touba Milano ci kër Serigne tuwaa gi waaye muy suñu kilifa di suñu jëwriñ waaye tamit di jëwriñ ci biir liggéey bi nga xam ne mooy bisu xasida bi ñuy taxaw fi Touba Italie Serigne Moustapha gannaaw bu la nuyoo bu baax rek ziar la ndokkee ci at mu bees mi ñuy bëgg tamit di la ci balaax bu baax di la ci balaax di la ci ñaanti bu baax a baax yàlla yàgg leen fi loolu te leen wax dëgg yàlla ndax suñuy taxawaay rafet na lool saa yuñ geesoo gis leen mu doon ab soññee ci ñun wax dëgg doonte seen i kàddu xëy na néew loolu lu muy jóg waaye jëmm yi ñu gis rek wax dëgg day def si ñun lu bëree bëree bëri ba wax dëgg yàlla day yokk pas-pas ak pasteef ci ñun ñëpp kon suñu saa mel ne kon ren ñoo ngi ci fukki yoon ak ñett bi ci bisu xasida bi wax dëgg yàlla yëpp ñu koy teewee mu mel ne euh, lépp loo xam ne mi ngi dox rek kon du ñàkk kon ay ay soppi ko di ci am moo xam ay yokk-yokk la wala yoo xam ne yu ñuy wàññil yoo xam ne dafay jar a wàññi kon suñu Moustapha ba léegi nga ciy teew ndax euh, bis bi nan nga ko dundee tey jii ci fukki yoon bi ak ñett bi ak lan nga gis loo xam ne wax dëgg yàlla lu lu soppiku la ak it yan kàddu yi soññee yoo xam tamit da ko ci mën a yëkkati ndax xam nañ ne wax dëgg yàlla bu ngi fi te yi mel na ne yaatu na te xaw na takku Cheikh Mouhamadou Moustapha. waaw asalaamaaleykum wa bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala ala sayyidina wa mawlana وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين رب اصلح لي صدري ويسر لي أمري ولحق لازم لساني يفقه قولي سيرين باكي نيون لاي فاي اب نيو ديلا ديلو اك اك اك تانت اك بالو اخ دي بالو اخ دي نيو داف تي اتو مو تاد مي نيو دوغ تي ويرو محرم دي نياري فان تي تاي دي نياري فان تي ويرو محرم weer wi nga xam ne ay xew-xew yu baree bari amoon na ci e, yàlla dogal te jii tamit dajeeg bis bi nga xam ne ni ko waxee bañ ko tàmbalee amal te ji mooy fukkeel bi yoon ak ñett ma mën a wax ne yaakaar naa bañ ko tàmbalee léegi defe naa ne ñaari yoon laa ko wuute muy buñ ko njëkkee def Rimini ak biñ ko defee Padoa yàlla dogal na. yi ci des yëpp defe naa ne amu ci benn bu ma wuute ànd na maag yéen dem dem dem Pescara ànd nañ wax dëgg yàlla daal dem na ànd naag yéen dem fu bëree bari boobaak léegi nag euh, mel na ne ci njëlbeen ga man la ma ca gisoon rek muy ak kii waxoon naa ko mel na ne boobaak léegi it ak soppi ko mi ngi ci am bu baax ndax bu fekkente ne yàlla dafa dogal ngeen fas yéene nuy fas yéene di liggéeyal Sëñ Tuubaa ci xasida yi moom nu mu gën a rafet ak nu mu gën a sell rek moo war a am boobaak léegi nag wax dëgg yàlla man gisuma ci lenn lu may xebat xanaa di gën a sant yàlla rek tey ñaan doxin wi gën a rafet ne gën a rafet la ñuy wax waaye rafet bi moom macha allah am na di ñaanal ñi nga xam ne ñoo koy taxawee suñu boroom yokku leen te guddal seeni fan te wéral leen ay tut tànk lañ mooy ñu mel na yow waaye wax dëgg yàlla yëmale woon ko ci bisu xasida bi donc lépp lu ngeen xam ne gis ngeen ne luñ mën a liggéey la Serigne Touba la yéen a nga cey taxaw seen kem kàttan bis bi nag moom doon na loo xam ne ñaan yàlla di ko di ko fekke ay aju bare rek waaye wax dëgg yàlla amul ci lenn noonu luñ ciy xabat xanaa di ci am ànd ak mbégte waxtu nekk ndax man damay wax ne bis bi jàpp naa ne képp ku ma fi gis jàpp naa ne borom تير لو باخ نيور نال ناخ بيس بو خامني بو فا نيوي لو فا گيس لان لون فاي ديف لودول جانغ القران جانغ قصيده وقتان تي سيرين بي ديف على صلاه على النبي ديف بيرن ميغا خامني يونو مودين موم داتي مونتا نياك جاب نان لول موم سانت نيكو نيكو جيت دونغ لان لو اجي نيان تي نيان سون بوم گن لي ياگال سينو تاخواي گن گودل سيني فان گن لين ويرل waye wax deug yalla dal man gisuma ci lenn لو xamne لو euh, lumay xebal la waaw man nag sama sama sama sama xalaatu bopp rek laa leen wax gisuma ci daal lu may xebat xanaa di ñaan di koy eh, ngeen yàgg koo def te yàgg koo ànd te lépp rek suñ Tuubaa nangu na ko loolu rek la ñuy ñaan jërë ngeen jëf. Euh, jërëjëf Cheikh Amadou Moustapha ci kàddu yu am solo yi xam naa kon kàddu gu rek bu dee kàddu yu soññee mën nañ koo am rek Mbacke Balla loo xam ne day jëm si si mbokki dong yi nga xam ne ñu ngi ci biir liggéey bi di ci dox saa su nekk wax dëgg yàlla ngir lu gën a ñoŋal bis bi ba mu gën a murte Cheikh Amadou Moustapha ay kàddu yu soññee rek waaw sëñ Mbàkke kàddu yu soññee yi moom daanaka du weesu euh, kenn ku nekk jàpp ne mbir mi yaa koy doxal boo ci amee loo ci mën a doxe nga jàpp ne boo taxawee rek mbir mi yàqu jàpp naa ne loolu rek mooy kàddu soññee yi kenn ku nekk daal na nga ko def ne sa mbirum bopp jàpp ne man la ma ca war a def wala su ma waree fab tànk dem su ma demul mu yàqu jàpp naa ne loolu rek mooy kàddu yooyu nag yëmaliwu ma ko ci yéen dong man man maa ngi ci jiital sama bopp ndax man li ma jàpp mooy mbir mi bu mel ne nam war a mel du ma ci bu alhamdulilahi rabbil alamin laay wax waaye bu melu nam war a mel it man du doon lu ma neex te yaakaar naa bari naa ci merom ku mel ne sëñ Mouhamadan moom nu ak sëñ Fallou mii wax dëgg yàlla liñ ci ànd ak yéen ngir yàlla ak jëmi suñ Tuubaa képp tax ñu di ci ànd te suñ ko gisu woon ci yéen it nam nan am lu doxe waaye nag ban ko tàmbalee ba léegi dañu gisul ngeen doxal nan lu bokku lu lu lu lu ñor yalla ak yoonu bi Serigne Touba kon na dañ leen di ñaanal rek sun borom gëna guddal seeni fan te lafal leen ciat te daqal leen shaytané ba fépp fu ngeen bëgg liggéey bi ag fa ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen àggali ko fa waye wax deug yalla rafet nañ yottu bu baax ndax japp nañ ni kenn ku ci nek li nga ci def defaloo ko kenn sa bop ak Serigne Touba rek tax nga di ko def ki ngeen di liggéeyal nak amna pay daana wax ne loxo su tuuti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 nañ xam ne xëy na yéene la ak ak ak ak bëgg lu baax lu ci dëng yi nan nu ko jégal xam ne lu luñ ci lu dëng xam nan nu ko jégal xam ne lu rafet rek lañ bëggoon a wax lu jub lañ bëggoon a wax jërë ngeen jëf jërëjëf Mbacke Balla kon ki ngeen déggoon sànq muy wax rek mooy suñu Moustapha Mbacke ba Touba Milan nekk fii ci Kër Sëñ Touba gi nekk Milan nekk imam bi wax dëgg yàlla muy kilifa ci biir liggéey bi wax dëgg yàlla yi dox doxin woo kawe wax dëgg yàlla wu kon ñu koy sant baax di ko gërëm xam naa di doxaat ba ci biir rek ngir daje